les réalités du métier. Les réalités du métier. Sénégal TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu am mbégte ak kontaan ñoo génn seen émission les réalités du métier mbokk yi tey nag ñëw fi nga xamante ne moom mooy Pikine Icotaf quartier Sëñ ñu ñëw seet benn jeune bi nga xamante ne naa leen daanaan la lu tax ma ne daanaan la nag parce que dafa mën lu muy def mbokk yi tey ki ñuy wax laay création moom lañ seet muy defar yu doy waar ñi nga xamante naa leen képp ku ma gis kontaan baa nga bég li ñu def rek mooy dama naan sama caméraman mu topp ñu ñu dugg ci biir ñu wan leen ñu baax yi bamba ñu dem bon yéen a ko gisandoo ah laay création wax la culture maîtrisée kon ni ñu def rek dama naan bamba ñu dugg ci biir ñu wan leen tey yu baax yi waaw bamba comme ni ma la ko waxee rek dañuy dugg ci biir ñu xool tey ki nga xamante ne moom lañ seet laay création laay création la wax asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi. waaw sama gars yi na ngeen def. ñu ngi ziar waaye nañ ci jàmm. dafa mel dafa mel dañ la fekk si liggéey bi quoi. waaw man man man man bii sept jours maa ngi nekk si waar quoi. tey tey waa Sénégal TV ñoo la seet si. waaw mais dalal leen jàmm yéen si yéen si yéen seen kër si seen kër. parce que ñëw xool bagage yi quoi. comme comme gars yi nee nañ laay moo koy dagate quoi. <laughs> waaw bisimilah bisimilah yéen si yéen seen kër. yaayam yëpp. waaw gis nañu ne dara jàmm. comme ni ma ko la waxee comme ni ma la ko waxee. sama yaay ko gëm yàlla. te dafay ba pare tamit teg yàlla xam na ko ba pare na jaboot jaral ko lu ne. yàlla xam na ko. parce que moment boobu métti woon na torop torop torop torop torop torop ba tax na période boobu ko xalaatee rek naa ne loolu bokk na si mu gën a dolli man tey jii des fois nit fekk ma ci atelier yi bu fekkee xamoo ma nii par média xamoo ma dara ngay dégg nii rek sama tur nga ñëw laaj ci ana laay ma ne maa ngi maa ni tur bi màggee jëmm ji màggee boo moytu tuuti rek naa ne lii ñaanu waa ji dëgg dëgg parce que am na ñoo xam ne ñoo ma njëkk si métier bi téeméer junni yoon gën maa jàmbaare téeméer te nag ya apa itu fayda ya apa yàqu darah ini itu mereka buat saja. bu nak mais man nag li olof yi lépp liggéey nday amit doom gën naa ko xam naa xam daal bi sant yàlla bu baax kon mbokku internet bi comme ni ngeen ko déggee rek liggéeyu nday añu doom muy li nga xamante ne moom la laay wax man na côté boobu moom sincèrement parler xamatuma ay naaj taw parce que li ma li ma nekk nii mu nekk suma métier. si la suñu teraanga si la teraanga doomu aadama yi fii xëy si kon donc lépp lu ci organisation. dama koy organiser sama muy si liggéey bi muy si machine yi muy si yëpp parce que man su ma atelier bëgg ma sax maanaam càmbar càmbar bi ñu génn. di place liggéeyukaay. bañ nañ ko ba dañ ne complexe laay créateur te aussi tamit ci fàttali maanaam façon créateur bu nekk moo fi ñu seet si hmm. kon donc client bu ñëwee di ñu seet si d' abord balaa dara di xew a njëkk a jox respect hmm. nga xam ne maanaam ñi ma ñi ma fekk ak ay ay ay borom jom laa fi fekk hmm. ay liggéeykat laa fekk kon donc suñu liggéey il fallait que ñu organiser ko teg ko si yoon man su xëyee tàkk li may njëkk a def mooy ku si nekk sa programme lañ la ko tegal sa promotion su nekk soo xëyee li nga war a def xam nga ko soo xëyee si loolu ngay nekk parce que man li may xëy tàggoo sama kër maa ngi dem liggéey samay employé lañ koy noonu la ñuy xëy tàggoo seen kër maa ngi dem liggéey te si nekk dañ fi ñëw pour sa teraanga kon donc teraanga bi tuuti sa teraanga bon loolu war yi nga xamante ne doon naa waxtaan ak ñoom bi muy waxtaan dafa baax trop trop trop trop te Sénégal en général bu ñu naan jiw dafa baax trop trop rek am na ñu koy ren si suuf xam nga parce que xam nga atelier li koy dañuy faral di wax ne atelier li koy doxal mën na ko daanee mooy mooy client mais souvent da ngay gis client yoo xamante ni dañuy ñëw nga ñëwal leen ba pare yu bàyyi seen xaar dem bàyyi seen tisi te loolu bu yàggee mën nay daaneel atelier est-ce loolu du lay dal waaw loolu moom li may dal dafa jeex <laughs> loolu sincèrement parle man dem naa ba léegi am naa ay ñoo yoo xam ne xamatuma seen borom barke bi rasulullah am na ñoo xam ne sama tissu mi ngi si diw da leen a neex mu comme mën naa jël exemple sama bopp mhm. am na client yoo xam dañ naan sama tissu de si laay loolu rek pour ñoom feexee la si ñoom ndax xamul ne loolu maanaam day gaañ laay mhm. ma ko yàlla bàyyi nga jaawale ko mhm. wala nga jël ko ñawal ko beneen client te xamoon ne client boobu moom moom un jour viendra borom ñëw ne la sama tissu léegi léegi léegi léegi doo ko ne déedéet xam nga li ngay mujjee def mooy expliqué da mujjee obligé waxtaan ak moom bu ngeen déggul si kàddu nga xam nga nit ku nekk ñaanu yàlla di liggéey ba pare retourné li ngay liggéey nga jël ko di ko fayaat tey jii am na ginnaaw boo xam ne ñëw andi la ñaw mm. nga la ñaw bi dama ko yàqam ci trop ngeen waxante ba déggoo si kàddu mu ne su ma jël si fay yëpp nga ñaw ko pare ñu baax am naa te boo bëggee léegi ma génne la ñawi moo client boo xam ne day ñëw na la ñëw dama ko soxla gannaaw suba dama ko soxla nga bàyyi sa yite yëpp jël sa xalaat jël sa xaalis def sa financement ñëw téye bi pare nga fay ko parce que comme ñun léegi suñu liggéey comme ni ñu liggéeyee amatul ay liggéey ba weer bee lu téye bi liggéey da nga koy fay bu client bi jëlsee moom xamul bu client bi jëlsul moom xamul léegi nag lépp yow sa kaw lay ñëw tey ba tax na maanaam comme ñun ni ñuy wax des fois bien vrai que ne wax dëgg neexal waxtaan dafa neex dafa neex ñu si waxante dëgg quoi tey jii gis nga ñun ni ñuy tooñee client yi client yi dañuy tooñee ñu ko raw mais ñun chaque jour suñu défaut rek lañu wax parce que soo waxee ñu ne téer bi nii respecté respecté wul télé bi respecté mhm. jox mu sàcc ko jaay ko or que maanaam loolu yëpp na bañ a am mhm. tey jii nii boo nekkee say clientèle mais nag am naa ay clients yoo xamante ni mention spéciale billaahi man dëkk mhm. ma tiitaroo ku si ni comme ndaw si ngeen fekk nii ñoom dafa te lu mu am moom pour moom su ma ko ñaw di si yëg boppam xam nga loolu rek sant yàlla kon nag maanaam métier boo nekk di si am ay clients yoo xamante da ngay am yaadewoo am loolu moom fépp la ñu sant yàlla nag. Euh, mbokk yi comme ni ngeen ko xamee rek mais nag dafa am loo xamante ni xam naa euh, su ma ko laajee laaj dina xaw a ree tuuti mais nag di nga gis ne euh, yéen tey jii surtout yéen jeunes yi nga xamante ni di ngeen yor complexe yu mel nii xale jigéen ñi dañ leen di sonal trop loolu loolu moom dañ ko seetlu quoi loolu loolu lu tax luy waral loolu. ah mais nag sant yàlla parce que xam nga tax sant yàlla noonu dañuy waxtaan du si problème pour ñu nekk si di caaka di caaxaan wala di bulo wala dara mm-hmm. mais nit ku nekk boo yoree li nga xamante ni jigéen ñi bëgg nañ ko mm-hmm. kon war nga ci mën a sant ma duñ ñawlu mm-hmm. mais ñun soo xoolee boo ëpp nañu ñawlu mais liggéey boo xam bëgg nañ ko daw songuñu sant yàlla comme tey ji man maanaam bu fekkee ne quinze jigéen topp nañ ma bu subaa nga yàlla naa xëyaat yeneen trente jigéen toppaat actuellement ni actuellement ni ñaata la topp non non bu dee si cadre non mënu ma leen compter mais aussi nag naa la xamal benn affaire am naa ci ay xarit ma tey boo fekkee oh. wala samay client ñuy kaf di dee lool boo saa bu fekkee amoo tuuti tuuti tuuti xel rek da a noppi te or ko du loolu c'est-à-dire man la yàlla bindee noonu damay kaf damay dee damay mbalagante man samay damay waxante ak ñoom par WhatsApp damay waxante ak ñoom par messenger mais c'est-à-dire am na koo xamante ni aussi moo bëgg ñu yegg foofu parce que tamit du yor ay doon mais am na loo xam ne xamante maanaam bu ci bëggee yéeg du ma la vexé du ma la wax lu la du ma def dara mais dinaa la delloo si waat xam nga ma mhm. mais maanaam bu dee comme si cas caaxaan ay boulom yooyu non sama temps sax mhm. ma yow non ma wax ne ay du ma dem baali ji wala du ma fii su ma demee ci milieu rek non am na lu rëy moo ma pour dem ci ay boîte nii non man du ma dem boîte aussi tamit dem ay géej ma def yooyu mais tant nag bu dem ay grand théâtre wala mm-hmm. parce que des fois nag liggéey bi moo la imposé mm-hmm. dul loolu bu fekkee am na xale bu jigéen bi dafa wax ne ko seet si ma di ma doxal. bu mm-hmm. duggee si sud bi mën bi xam nga say tey yéen tey yi dafa xale jigéen ñoo yaa leen yéen leen di mais ñoom ñoo leen di doxal yéen est ce que tey loolu mosul mosul arrivé am xale bu jigéen boo xamante ni topp na la. li laa war a sóor dimbali ma dama dama la nopp est-ce que loolu mos a arrivé. <laughs> ah mais daaw loolu moo koy ñaar. loolu mun si ñaar. loolu mun koy ñaar sincèrement waxtaan tamit na ànd ak dëkk quoi. loolu mun koy ñaar mais mooy comme ni ma la wax loolu du tax ma vexé la. mu wax la lu la naqari wala dara mais mën naa euh, waxtaan si ak yow de telle sorte que ni. maanaam après doo gaañu bu yàq ma diggante ma dara. mais tey bu ñu ñëwaatee ci li nga xamante ni sànq yaa ngi ko doon wax muy euh, li nga xamante ni moo nekk ci muy emprunté tey bu ñu xoolee bu ñu duggee ci biir léegi xool gis nañ ni presque mën nañu sa génération rek ñoo fi nekk te souvent da gis nit koo xamante ni euh, day xaw a bañ ci nit ci koo xamante ni yéen a yéen a tolloo génération te ñu fi gis ñëpp mën nañu wax ni yéen a bokk génération ñooy dundee ñooy dundee euh, kilifteef boobu ak par rapport ak ñi nga xamante ni yéen a bokk génération waaw loolu ma koy sant yàlla ma koy sant yàlla lool bu baax a baax. aussi macha allah man sama atelier dafa neex. par xam nga sama atelier dafa neex mooy. fii amul kii moo mag fii. amul kii moo jiitu fii amul kii moo mujj. ñun fi boo ñëwee ñun ñëpp benn lañ. comme des fois da ngay dégg nit di lim naan maa ngi lim si ci si kaw ba ci suuf. fii ñun ñëpp a maas. bañ naa ko ba su may waxtaan ak ñoom dama leen wax ne li tax affaire yi neex. mooy ñun ñëpp ay génération la. parce que ñu doon ñooy ànd di football yi bu ñu comme par exemple bu vacances jotee bu ñu waree dem plage ñoom ñëpp ñooy ñu amee lu ñu dem dox ji ñëpp ñoo koy dem doxi amul kii moo jiitu amul kii yàlla bërëb bu mu sàkk bu ne na fa koo xam ne moom la fa def jiit muy dafa am tur xëy loolu mën na fa yàlla defal mais nag mention spéciale ñoom ñi ñoo nekk sama ginnaaw di ma dooleel te yaakaar naa liggéey bi ñu liggéey ku ci nekk si sant sa bopp sant yàlla mais fii maanaam ñu ngi koy sant yàlla quoi fii moom ñun ñëpp ay kon mbokku internetu Sénégal TV ñu leen di fàttali ba tey yéen a ngi seen émission les réalités du métier comme ni ñu koy waxee tey nag ñu ngi Pikine seet ki nga xamante ne moom mooy Laye Création nee naa leen nag du jeune waaye nag dindaa naan bu leen ko fàtte yaakaar naa tey euh, modèle yi nga xamante ne yéen a koy gis yi ah du bëri foo leen gis de kon Laye bu ñu ñëwaatee euh, ci laaj yi ñu lay laaj parce que dafa am loo xamante ni dañ ko remarqué léegi mooy ci milieu mode milieu mode bi dafa am lu bëri lu ñu ciy dégg borom ñaari tur yi trop borom ñaari tur yi mën nañu wax sax góor jigéen ñi dañ leen dañ leen dañ leen dafa bëri trop li leen tudd si milieu monde bi est loolu du am lu muy yàq waaw xam nga nag suñu métier bi comme li ma sama benn grand bi wax soo waxee mu ne laaj léegi bëri dafa bëri yu salte mm. mel noonu mooy waral di ko wax te nag man maanaam loolu su ma kàddu bi ci a sori loolu parce que dund ma ko mm. te aw ma benn copain buy dund loolu dund comme caagane borom ñaari tur mm. mais bëri na si suñu métier bi te góor góor da war a def yëfu góor mhm. jigéen nga def yëfu jigéen nekk téye warul tax maanaam nga bëgg a jaay sa ngor di def ay affaire de jigéen yàlla ci yàlla musal maa ngi jégalu sax si baat bi maa ngi jégalu si baat bi di jégalu xam nga mais nit ku nekk da nga war a am fulla ak fayda métier bi suñu maam yi laay wax ñoo ko njëkkee woon su fekk gàmmul seen loxo mhm. suñu papa yi ñu déggoo puso bi damm kon ñun jeunes yi puso mm. bi war a damee suñu loxo daal dafa war a rafet parce li ko war a rafetal mooy nit ki maanaam bul ne si sama comportement wala si sama doxin mm. mooy tax ma am li ma bëgg si métier bi non mm. métier bi gëm-gëm la ak fekkee ne maanaam li ngay woote mi ngi si mooy nee nga da nga mën li ngay def nga wale ko si sa liggéey wane ko si sa personnalité wale ko maanaam si sa comportement ak clientèle bi ngay jëfantee muy lan ku yëkkati ñoom jox la bu fekkee comme macha allah ni ma koy wax complexe la création bu fekkee euh, création bi ci yow war ngaa bégal client bi ci seen ba mu kontaan te doo ci nekk maanaam di ci wane benn jox li mu bëgg ci wane lenn lu ñàkk donc kon maanaam loolu moom macha allah bëri na si suñu lool. maa ngi sant yàlla suñu la nattoo ma ko te nattoo ma koo xam ne xam naa ko si métier bi. mais gis naa ko dëgg ne xaar bu waxee dëgg rek. wax dëgg xam nga nit. ak ah jaar-jaaram. waajaam nga am ak ci jaar jaaram du ñàkk durant li nga def métier yëpp am na li nga xam te ne moo ci gën a neex tey su a ah, a li ma ko bëgg li ma bëgg métier bi loolu moo ci gën a neex ak aussi tamit am ay client yoo si tamit neex na lool ci métier bi ba pare na ci li ma am nga nit en général fu mu amee lu ko neex rek mën na fa am lu ko naqari tey booy wax li nga xamante moom moo la naqari sa métier bi lan la. ah a nag moom mooy. maanaam euh, di caage ne maanaam dama bon wala dama soxor wala dara. Hmm. mais da gis léegi ndaw. jàngi métier bi. mënagul lu dul nas machine. Hmm. ak ñaw benn couture mu jub rek. Hmm. mu obliger beru ubbi atelier boppam. lool nakari na ma lool ci suñu métier bi parce que nit loo jàngul fu man doo tari te aussi maanaam da ngay gis koo xamante ni dafay ñëw naan la diw de moo may diw nii mais bu demee ba ci biir dootul amati lu ko neex day la man yenn ci bëgg di dugg ci loolu loolu nakari na ma ko bëgg ci mais mu am aussi tam phénomène boo dañ ko gis euh, yi nga dañ am atelier amboo seen ay nit jànguñu métier bi amuñu yan difficulté moo nekk si métier bi euh, dugg si métier bi dem benn moment affaire doxatul ñu tëj est-ce que loolu du yàq métier bi ah, nga laaj ko moom la ko xam ne leen di dañuy am am tur ba àdduna yëpp xam ko. Mhm. mais at leen fu mujjee fayit la mujjee at leen mujj la tëj. maanaam ma tamit boo gis laay muy dugg génn tey jii la waxoon li may jànkuwanteel sama métier bi billahi bu subaa soo ma yeddee da nga naan liggéey si man dama ciy dund ay difficulté yoo xam ne su ma yeggee sama kër bu ma dal sax sama waa kër damay yegg rek tëdd nelaw ndax léeg-léeg ngay xëy am si ay déception yoo xamante ni mais li may may loolu mooy métier bii man maa ko su ma bopp mm-hmm. mais femme dañ lay gis ngay dugg di génn ci ñaar di dugg di génn wala ngay exposé lu rafet rek ñu ne xale bi mi ngi ci ko jamono mm-hmm. fekk yow amoo ci dara léeg-léeg da ngay yëg sax say moyens yoo xam ne amoo ko si liggéey bi defaat ko wala li nga xam ne yaa ngi ko amee ci place yëkkati war ko defaat ko lépp ndax lan ngir am jom ak lan bañ maanaam say noor reetaan yi mais ñoom jigéen ñi buñ la nettalee rek coono bi ñuy daj non dootuñu ko defati bëri na ñoo xamante nii ubbi nañ seen place dañuy obligé xëy di jaay seen i machine ndànk ndànk te yéenewu ma leen woon loolu mais métier balaa nga koy def da nga koy xam sincèrement parce que métier balaa nga koy def da koy maîtriser dëkk waaw yaa ngi wax léegi déception est-ce que mën nga wax internet Sénégal ci ban déception nga am boo xamante ni lu doy waar la loo xamante ni comprendre ba nii nii nii boo koy wax sax dalay waaw loolu nag moom sincèrement bu ñu di ko nettal parce ko dee wax rek day nekkaat image boo xam ne dafay nekk sax sama sama xol day jooy muy teraanga boo xam ne ñu ko seqoon ak ñëpp mhm. bu ma demee nga xamante ni dem nañ ba xam ne affaire yi war na aboutir. Mhm. non mu jëf ma jëfin boo xamante ni du ma toog di ko nekkal. nii nii nii nii xëy na waxtaan loolu laa gën a loolu moom naqari na moo trop bu ma sax su ma ko dee wax rek day jël si léegi nii sama kanam waratu ma bëgg di ko waxtaan mais est-ce que yéen dina leen arrivé souvent ngeen xool nit nii rek parce que souvent am nga liggéey dañuy faral di wax ne liggéey day ànd ak professionnalisme est dina leen arrivé ngeen xool nit nii rek am mesure am ñëwal ko te du am benn problème waaw xam nga nag nit mënoo xam sa bopp xam keneen. ne mhm. man souvent te loolu moo ëpp sax sama liggéey sama liggéey loolu moo ci ëpp maanaam comme li koy firndeel su la neexee nga jël client bi toog nii du sénégalais mhm. du sénégalais ñag la mais dama fi ñawaloon benn sœur bu ñu doon marié bu mu ñëwee ñii la ma woon rek par photo mhm. mais bu mu yeggee macha allah ñaw yi amul benn boo xam ne ëpp na ci wala mu manqué souvent man sama am na ay clients yoo xam ne mën a ñoom mosuñoo tegante bët par internet nii rek lañ xamal que grâce à média yi lii moo tax yoo xam ne ba tey jii ne xamul sama mu nekk nii la ñuy waxante li waxante nga wax ma envoyé lay modèle nga wax li ci bëgg xëy tissu comme damay jaay tissu ma jaari tissu nga envoyé ma man souvent wax ne la envoyé ma photo boo xam ne naturel nga pour l'instant noonu nga toll su ma gisee photo rek yàlla mi may def sutura saa yi ma la ñëw ne suñu borom def sutura internet Sénégal TV comme ni mu leen ko waxee woon rek tey moom <laughs> yéen a ko dégg yéen a ko déggandoo seen bopp tey naa leen ndaanaan lan seet jeune la si âge mais ndaanaan la ci li nga xamante ni moom la moom la mooy métier bi nga xamante ni moom lay def euh, laay tey bu fekkee am na loo bëggoon wax te laaj la ko lan lay doon. non su ma bëggoon rek yaakaar naa ne maanaam seet si ngeen ma seet si dafa sa sama xol ba maanaam tey jii nii lu ma bëggoon a wax te laaju leen ma. Mm-hmm. ñu mën a lii la parce que dèjà tey jii bu Sénégal bii parce que ñoom tamit du site bu ndaw. àdduna yëpp mais su amee loo xamante ni maanaam euh, bëggoon naa question te posé ma ko question. bon muy sama jaar-jaar commencement bi sax xam naa <laughs> am naa boobu kii moo ko moo ko jàpp. mais commencement bi sax laaj naa ko tey parce que maa naan la sànq sa nit koo gis na mu jaar tey koy boo ñëwaat tey sa jaar-jaar tam sama jaar-jaar ni yàlla defal moom ma jàng sama métier ba mokkal ko sama patron dafa ubbi woon benn atelier bu ubbee ak atelier gën a nekk xale gën a nekk xale te aussi comme boobu moom mi ngi yaatal liggéey bi te jëkkëram instant moom la joxoon atelier bi pour mu gérer ko mais jëkkëram xamul woon si liggéey bi lu bari mhm. finalement man lañ jëlee woon fii Pikine may xëy aslem léegi foofu man maa fa nekkoon comme clientèle bi ñëwee man maay wax ak moom dèjà dama macha allah dama teel a jël responsabilité ci liggéey bi boobu man lañ yóbbu woon aslem bu client bi ñëwee maay wax ak moom bu ñu waxaalee ba déggoo ci prix ma jëlal ko mesure bindal ko lépp jox ko rendez-vous bu jot après damay damay damay damay damay expliqué jëndañu xam nga koy renseigné rek wax ko rek client bi ñu waxante daw daw daw comme li ma lay expliqué comme sama papa dafa teeloon ma def commencé màgg. nga mhm. tamit man maa jëloon seen responsabilité pour mhm. ki nga xam ne mooy sama patron ma waxtaan ak moom ne ko man daal léegi dama bëggoon maanaam su fekkee ne mën na nekk teguma la benn sas la. Mhm. mais pour nga taxal ma salaire. sant bi mu nekk loo xam ne da lay gaañ. loolu si man la dinaa dinaa mu nekk. ku tey ca dal. bu ko waxee mu doon mu xool xool situation yi xam ne li ma ko na ne maanaam li mu ma bëggal tamit comme yor ko instant boobu. ne ma léegi kon dama lay ñaanal. bu ko defee nga dem embauché bi. te yi ma bañ mu insisté si loolu. yàlla def man tamit ma ñëwee ma waxtaan sama yaay sama yaay ma doon bañ ne ma continué nga toog foofu. comme demee na noonu mu ñu expliqué ko moom tamit mu waxtaan ak sama yaay ba yàlla def ñu déglu si kàddu mu ñaanal ma ma dem benn atelier bu ñuy wax Diaw Couture Diaw Couture jamono jooju mi ngi nekk waagu ñaay sam benn gaañ moom boole woon ma dem ko di ko liggéeyal wax dëgg neex yàlla moom tamit ba léegi nii nekkatul Sénégal mi ngi Espagne mais ba léegi nii dafay am samay appréciation bon ma dem foofu man tamit commencé di fa kalañaat di fa kalañaat su weer wi deewee li may fay su ma si jëlee ma joxe si dépense une semaine ndox sax la ma jox ci dépense un mois jël samay pass li ci def ma denc ko à côté ba yàlla def may kër ci kër ci kër ba jël sama benn machine bu ndaw du ma ko fàtte marque fof jël bopp bi teg ñu dawalaat quelque temps weer wi deewaat ma jënd table teg jël machine teg ko sama néeg mais taxuloon mu yàq sama liggéey dara parce que boobu comme yàlla mi ma doon may ay client benn benn parce que dimanche daaw liggéey bu dimanche su ma liggéey du ma xam ne def mel may profité ñëw ñëw client yi ba mu yegg ma mhm. woote client yi ñu ci mën a livré ma dem livré leen mhm. bon si loolu la ma yàlla di fekk si loolu la ma yàlla di fekk ba tey jii loolu mooy taxawal yi ma koy sant yàlla. Ah, kon mbokk yi macha allah gis ngeen euh, jaar-jaaram euh, yaakaar naa fi mu nii suñu njeextalu émission waaye xam naa dama lay bàyyi nga tàggatoo ak internetu Sénégal TV. waaw waa Sénégal TV wax dëgg neex yàlla tey moom man awma seen fay. leen remercier d'abord seen disponibilité. bu ak si seen professionnel euh, professionnel bu ak seen yëg-yëg parce que xam nga nit ki soo ko liggéeyul rek doo ko yëg dëgg la parce que tey jii laay création fu mu nekk sori na lool hmm. mais teewul ak déplacement hmm. ñëw xool maanaam nu liggéey bi di déroulé hmm. te yaakaar naa bi ngeen ñëwee aussi tamit gisu leen ci lenn loo xamante ne lu ñàkk fayda la donc mais loolu grâce à yéen parce que tey jii man rek maa bëgg a toog rek ne dama bëgg a yóbbu sa mbokk ci média loolu yaakaar ma ne dina yomb. Mhm. parce tamit ñun maanaam suñu liggéey lañ yor. Mhm. mais tamit dañuy soxla ñu mel ni yéen. dëgg la bon kon ñun maanaam ñun amuñu yéen seen fay. ñun amuñu seen fay parce que gis nañ ne maanaam tey jii bu ñu xamee international. Mhm. yéen a ko waral parce que man ma fi dem bien vrai que maa ngi ma fi ay foire Europe wala dara am naa ay clients yoo xam ne ñu ngi Europe comme ni ma la wax sànq mosuñu maa teg bët teg bët. grâce à médias yi moo tax bon maa leen di saluer ñoom ñëpp de passage mais yéen moom tamit mention spéciale bon maa leen di sant yéen gërëm la soxla woon numéro téléphone yi mën nga ko joxe ak adresse waaw loolu moom dinaa ci sawar parce que tamit kuy jaay moom ku ko xam ne bëgg quoi mm-hmm. bon complexe Laye création mi ngi nekk Pikine Icotaf angle Serigne Mansour Sy maa ngi dend ak pharmacie Seydou Nour Tall suma numéro téléphone mi ngi nekk 77 510 03 52 bon numéro boobu si woote mën nga si jot si whatsapp numéro boobu am na Viber numéro boobu am na comment dire am na Facebook sama Facebook aussi mi ngi nekk complexe Laye création da nga def Laye création espace Diop soo kiiwee di nga gis si li nga dugg si Facebook su boobaa après boo ko duggee bu soobee yàlla di gis ay affaire yi def quoi mais maa ngi leen dellu di leen fàttali sama numéro téléphone mi ngi nekk 77 510 03 52 moo suñu yóbbu mooy jot incha allah. mbokku internetu Sénégal TV li leen leen andiloon fii nga xamante ni moom mooy Pikine Badaf quartier Sëñ Mansour ñu seetsoon ki nga xamante ni moom mooy Laye Création comme ni ma leen koy waxee rek di ndaanaan bi nga xamante ni kenn dootu ko naatable. mbokk yi fa laay jaay rek di nuyu sama caméraman bi nga xamante ne moom mooy Bamba ak euh, Moustapha tey li nga xamante ne moom moo nekkoon si son bi. Euh, di gërëm aussi tamit euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Pikine comme ñun Pikine nañu yeewoo saa su nekk te Pikine nañu am ma leen jox di daje rek ba beneen yoon ak beneen émission les réalités du métier di leen wax rek allez bye baay waaw mbokk yi euh, ba tey ñee ngi seen émission les réalités du métier ñu toog ak nag tey ki nga xamante ni moom mooy secrétaire u ki nga xamante mooy Laye Création euh, soxna si maa ngi lay nuyu mm-hmm. dama bëgg nag xool nga yokk baat bi tuuti nit ñi mën a euh, internet di mën a dégg tudd naa la maa ma lay fay maa ngi tudd Mame Fatou Mame Fatou mm-hmm. Mame bi ni muy mu koy ni mu koy kiyee quoi <laughs> moom Fatou tey est-ce que xam tey si liggéey bi tey lan la. waaw liggéey nekk secrétaire relation. nampal bi def tuuti. ak yéen yi ñu bi. comme xool lu mu bëgg. tey. équipe bu Sénégal ci ñëw seetlu ki nga xam ne moom mooy Laye moom mu wóor la ba teg la ci wetam. Mm-hmm. te ban témoignage man yàgg na fi am naa ci moom mu nekk nit ku mm-hmm. mën a toléré. Mm-hmm. nga sama classe bi ay jigéen lañ xam a dëgg. mu nekk ku mën a ma di <laughs> mën a toléré ku mën a supporté aussi. amul tey am na nit koo gis tey euh, mën naa wax lan mooy defalaay. man xam. gis nga gis nga Sénégalais nag dañoo mën a nëbb de. non non xoolal lan mooy nit koo gis am na defoo lan mooy defoo laaj. nit koo gis am na defoo mais loo gisul tamit doo ko wax gisaguma defoo pour l'instant. nee na nee na pour l'instant euh, dañoo gis tey bu ñuy dugg see si atelier bi yow rek lañ gis nga nekk jigéen lan ngay dugg dundee góor ñi nga xamante ñoom ñoo fi nekk waaw ñu ci biir moom ñoom moom ay Baye Fall lañ doo ñëw que fii amul xale amul mag comme ni ko laay waxee sànq ñun ñëpp ay xarit lañu yabante hmm. man dama mel ni comme ku nekk parce que dama leen miin tellement que tey bii xam naa bu ma doon dem moom dina problème parce que dañ nekk samay xarit ñoom ñëpp kaf reetaan laa fekk boo fekkee da nga naan sax dama ñàkk fayda wala dara mais ñoom dañ nekk samay xarit ñoom ñëpp vraiment. mais mos naa mos naa arrivé am benn am benn bamba bu la woo si ruq ne la dalaana. non. non waxaana mën na. non c'est non yooyu amu fi ñoom ñëpp samay mag leen dañoo jàppee comme kenn rek et tout. surtout sax yooyu vraiment. waaw waaw na ko na ko internet na ko internet Sénégal bi non. xam nga fi liggéey boo fi am ñoom ñu nekk ci biir mu nekk ci biti. ñoom ñoo nekk ci biir yow nga nekk ci biti. man ma nekk fii waaw. léegi euh, benn question bi ma lay laaj rek pour ñu tëj. Mhm. Euh, client bu ñëwee souvent da ngeen di gis façon client bu nekk. parfois ko tàng parfois ngis ko ay. yan client bu ñu ñëwee nan ngeen leen accueillir ak nan ngeen di dundee ak ñoom ba ñoom bu ñu demee a ñëwaat. waaw xam nga client moom buur mhm. ko waxee mhm. mhm. parfois ñu gis ko waxee ñoo xamante ne dañu xaw a compliqué. dañuy ñëw di la yuuxu. damay soog a amoon naa problème boobu. moom di la yuuxu di la affaire yooyu mais dafa dem pour moom laay mu jàngal ni comme liggéey bi ni muy demee léegi comprendre naa loolu yëpp client bu ñëwee di la créer ay problème yow da ngay xam nga maîtriser wu toog nga xalaat fexe ba nga xam ne moom moo la fekk si yow ko war a dalal quoi nga toog waxtaan ak moom mer li mer la woon nga ko comme loolu rek la waaw kon mbokk Euh, ki moo nekkoon euh, ki nga xamante ne moom mooy secrétaire Laye ñu bàyyi nga tàggatoo internet Sénégal TV. waaw maa ngi nuyu ñu may seetaan ñu ma xàmmee maa ngi leen di nuyu di kontaan ci yéen yéen tamit ñu baax ngeen ñu oyof leen neexoon da ngeen def seen liggéey ngeen dem mais da toog waxtaan ak ñun xool ci ñun di leen nuyu di leen ziar yéen ñëpp merci. waaw nee na mi ngi nuyu di ñu ziar kon mbokku internet Sénégal TV gis ngeen nag moo nekkoon. <laughs> moo nekkoon secrétaire u lay di xale bi nga xamante ni comme ni ngeen ko waxee gis ngeen ko dafa am caay te loolu lañ soxla mbokk yi lii lañ leen andiloon seen biir émission les réalités du métier gis ngeen saa su nekk fi ñuy dugg ak li leen di andil Sénégal TV la nag du feneen mbokk ñi leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah. les réalités du les réalités du métier.